Guédani et consorts euh, ce dernier moom mi euh, précisé que ni Arfan euh, nek fi woon mi ngi woon foofu si daanu biti réew pour liggéey bi nga xam ni itam cependant le ministre des finances mu daal fait exactement l'association lors du conseil des ministres dans son intervention Cher débat, mu que ni l'audit des finances publiques couvrant la période 2019 à mars 2024 avait été réalisé euh, par l'inspection générale des finances sur sa demande express. Il a précisé avoir lui-même signé l'ordre de mission de cette TODI en définissant les termes de référence à ses services, ce qui rend toute explication dont sur un éventuel euh, désaccord informé. Euh, li nga inspection générale des finances li nga ministère public euh, Mon sur sa demande amal niki 2019 japp li nga 2024 te tax exactement euh, lors de mission bu cette au début, moom moo exactement lors de mission bi maanaam moko euh, permettre li nga xam que moo euh, générale des finances daal di koy amal donc on a su si sàccoon wala kon su si à ce que nous peut-être lors du ko sooke ba waral euh, li nga xam que moo IGF di amal bobu di audit si li nga xamné que ministère bu finances ak budget et tant d'autres et tant d'autres moom itam mi ngi que ni le rapport en question qui a fait l'objet d'un point de presse animé par le Premier ministre s'inscrit dans une démarche d'évaluation de l'état des finances publiques en mettant en lumière les dérives financières constatées et en proposant des réformes pour y remédier l'audit s'avère crucial pour, euh, pour le cadrage micro-budgétaire du pays. Il est bon également de rappeler que Diba n'était pas présent au Sénégal lors de la présentation du rapport. Je euh, parce qu'il est temps de euh, peut-être sûrement

bu fekkee que mom, moo signé arrêt de morom mom Cheikh Diba mu gaay inspection générale des finances mën ngeen def audit interne ci la question des finances publiques dem len ngeen saytu fépp même bu que man Cheikh Diba l'a naa ci génne len rapport yi te man dina ko signé mota mané c'est lui-même qui a signé sa propre sa propre arrêt on a voulu protéger Cheikh Diba alors que Cheikh Diba mon pour mieux def enquête enquête audit ci les finances publiques là te moom signé hmm. tu vois hmm. bu Cheikh Diba dafa qui ci détournement est-ce que dina ko signé dina ko le hmm. ko day ku gisul daal nañu jàll nañu focus ci leneen loolu kenn du ko fi def audit en sens que moom loxoom laale na ci mais comme moom Cheikh Diba loxoom laalewu ci ci loolu nee naa la Cheikh Diba ci jamono Macky ak coow li lu mu bëree nii yëpp il a été directeur de programmation du budget directeur Cheikh Diba n'était pas ordonnateur il était pas ordina euh, ordonnateur ni ordonné nee le budget au haut chemin de l'État il y a ce qu'on appelle ñom les ordinateurs ak ñuy exécuter hmm. mais qui ñuy ordonné ñi santané mais Cheikh Diba les finances publiques le ministre des finances est directement lié que le directeur de programmation du budget yow moment où il y a détournement au sein du ministère des finances y a un directeur bi ministre moo dama ne ñu doon wax ni yëpp c'est incohérent ñoom xamuñu sax li ñuy wax wala xam nañu ko ci tayef lañ koy waxee mm. comment on peut lan la ñuy waxee ni que luubal am na nga bàyyi ministre bi nga dem ci DAGE bi wala nga dem ci directeur bi alors que DAGE bi dañ koy ne lii mooy les chiffres. ah mooy exemple muy. na nga exécuter chiffres yi ministre bi joxe. mooy exemple mbirum Mame Mbaye Niang mu ne moom dirigerul wul pox rek. waaw ministère bi rek le le le la c'est le c'est le dirigé. waaw alors que mon Mame product, Prodac signé le contrat c'est le ministre qui a signé le contrat. donc Fitaï, Moustapha peut être mon signé le contrat parce que mon ordonnateur bi. dama donne, voilà Moustapha Abba moom donne donne ordonné parce qu'il est le ministre direct il est lié directement aux finances publiques c'est lui le ministre mais pas pas Cheikh Diba Cheikh Diba était directeur de programmation du budget il n'est pas lié directement aux finances publiques mais moo tax ñuy wax ni que non ñom Ousmane Sonko dañoo bëgg protéger Cheikh Diba pourquoi ñi tuddu ay Amadou Ba tuddu Abdoulaye Daouda Diallo tuddu Cheikh comme adresse Mustapha Ba. Mm. ba paré bàyyi Cheikh Diba. ñu xamul ñoy wax lolu ñu xamul ñoy wax lolu il yow tu es directeur de 5 TV par exemple dans la répartition des choses à 5 TV on a le directeur, on a le secrétaire général, on a le trésorier, on a la direction, comme adresse hmm. de recrutement, la DRH, on a, on a, on a, on a le comptable, hmm. on a l'accueil. Hmm. Légui, ñu nous, sommes avons à 5 TV Nous amna, ou le détournement amna 5 TV Nous avons le DRH par exemple Nous ñu le service d'accueil ñu ne ko détournement am na 5 TV mais yow la ñuy jàpp bàyyi le directeur moom boo xamante moom mooy ordonné finance yi c'est c'est insensé moo tax ñoom Ousmane Sonko wax ba wax ni Macky Sall moom ci mbéy ndey bi ligi war nañoo leeral en même temps que en même titre au même titre que ses ministres des finances. alors c'est clair. parce que noonu la ñuy ordonné la hiérarchie noonu la ordonné de la tête en bas Macky Sall d'abord après c'est ministre des finances ngay wacc wacc wacc wacc wacc ba si souf ba alors c'est comme ça avant leer na euh, par rapport. yaa ngi fàttaliku keroog bo bo muy euh, le maire de Saint-Louis comment il s'appelle. Euh, Mansour Faye Mansour Faye. yaa ngi fàttaliku ba ñuy Mansour Faye bañ koy tumal xawma ma lan ba ne non non ba muy ne je crois que Mansour Faye xawma kan ba ne non non dage bi dage bi non non non astafurlah c'est pas Mansour Faye le ministre des sports là le ministre des sports Il y a ko ba ñuy les dages là les là détournement. Le euh, euh, ministre des sports. oui ba ministre non non non ñoom dañuy des jox leen chiffre ñu ne ministre ministre de la bëgg le cas des des des ministère des finances. nga le ministre direct ngay wax Cheikh Diba qui était le directeur des programmes. Hmm. de programmation du budget. nga ministre bi de nga ne Cheikh Diba dafa ñoo léral dafa a léral la. merci beaucoup Cheikh Diba qui a un patron son patron a un patron du patron yi ñooñu ñooñu ñooñu ñëw leeral ba pare en premier. merci <laughs> beaucoup waaw. merci Elfan euh, bay nga daal tàggatoo vite fait ak téléspectateurs yi nga xamni tam itam ñoo doon bàyyi xel à travers euh, cette émission le Togo de matinale sur 5 TV. alors seigne Fallou.